combat de la soirée c'est Omar arbitre sifflé na ci Amami ak Ouzin Kara Ouzin gars, mon gars, mon alma Monge ngem mon ngem lu blou, muy ak Cheikh Omar Première journée ñing production muy Idali ñing di dimanche 15 janvier 15 décembre 2019 fi ci stadium ba Mar ñaari mbër songo nañu ñaari mbër songo nañu Cheikh Omar Ousseyn Kora cokkaas na léegi bëgg mu siggi bëre ndaamalaak njool way bu yagge sëgg bi baxul ci njool mi lu muy def Ouzin dañ la daan daan nañ la daan nañ la almaami daan na Ouzin Kara jël bu jël bu set wecc waaw jël bu set wecc da koo mën da combat de la soirée arbitre sifflé na ci bébé lambay ak bébé Elton mais Cheikhou ñaari bébé ah. wa ñaari mbare mbare mom bébé lambay bébé Elton bébé lambay bawol bébé Elton écrit Balla gay mo nge mo nge mul wex bébé lambay mo nge mo nge mul xonq ñaari yaangi yaa man tay baram bébé Elton ciokas na waaye bëre ma la njool Elton jege ko oh lolo daanu na daanu xeex ah waay bu xeex waay bébé bébé bébé Elton daan na waaw bébé Elton daan na oh lolo ah ah bu mag ngi ne ah. non day kee moo daan kee moo daan. ah dama foogoon day sifflé waat. non non borom boo ah de waat na erreur la. oh là là ñu ngi xeex ci suuf. oh Bébé Elton ndax li nga amoon di nga amaat. Bébé Elton ndax li nga amoon di nga ko amaat. du mooy njool mi. mooy ku gàtt gi. xam nga góor a ngi naan léegi arbitre bi def na erreur bu mag mag. ndeysaan faqat da koy daan Cheikh Omar waxoon naa la ko doole ah mais moom moo njëkk a daanu Sankharé instant yi ba léegi mën nañ ne ko euh, quoi mais ñu ngi ji bu baax ñu jaay mbaa du xale yi dañ laa ragal non booy di ñoo war a jël avance bi ñu bëre gars yi di ñoo war a jël avance rek mooy loolu gi ñoo waa Tafa lan lay xaar mbër gars yi rek gars di ñu mooy rek nañ jël avance bi ñu bëre lam ñu jëm kanam mais ba gars ñi ragaluñ non mooy tuwante bi moom métti ci lam ji quoi waaw mooy tuwante bi moom métti ci lam ji gars yi di ñoo war a jël bëre seen biir lam ji mën a neex mais koo ci diw mën a la xoolal ma keneen nag doo comprendre quoi loolu mooy yàq ah, ñuy lu sedd la waaw lu weer lu sedd te fii moom fii moom lu sedd amu fi di tàng rek waaw amul yooyu Pape Mbaye ca Caaroy Mbooloo Boy Lo tefes gi Boy Lo waaw moo gën a gàtt ndeysaan Góor Njaay nee na ma Boy Lo moo gën a gàtt oh là là Pape Mbër te nga bàyyi dóor yi Pape Mbër bëreel te bàyyi dóor yi oh là là Pape moo def action góora waaye daanu na. ah waaw niru na daanu na nag. oh là là booy loo moo def action. booy loo moo def action de. moo def action de. mais day mel ni moo jiitu. waaw dafa mel ne moo jiitu sama caméraman sama caméraman nee na dafa mel ne moo jiitu ah. mbaa duñu sifle njaax bu dee njaax dañuy wat boy lo mo ngem boo ngem lu vert pambar mo ngem boo ngem lu gos bi boy lo mo fété suñu ndey jor pambar mo ñëwoon ginaaw ndeysaan mo ñëwoon ginaaw nonu mo ngem boo ngem lu vert oh la la ñaari xalé yaangi ngi bëre booy loo ngi door ci suuf faqat lan mooy am lan mooy am oh la la oh la yaa ngi bëre oh xale yaa ngi bëre faqat ndeysaan xale yaa ngi bëre lan mooy am Boy Lo bor na ko ndombo kadapi kadapi kadapi Boy Lo daan na Cheikh Omar daan na gañ daan bu daan bu rëy ndeysaan Abdou Bakhoum ñoo ngi lay ziar waaye siyaar naa la baax soxna si Abdou Bakhoum laaj bu gàtt rek ci diggante Ama ak Modou Lo fan ngeen ci tool ñoom daal ñoo ñooy préparé ñun pare nañu lépp juróomi at ba juróom-benn at li ci des mooy ñoom nañu nangoo bëre promoteur bi nangoo joxe avance combat bi am ndax combat bi Sénégal ko bëgg. nangoo tula avancé ci ci ci ci ci quatre yi mu taxaw. waaw mais waxtaan la rek xam nga waxtaan waxtaan rek la promoteur bi sunu frère la ni mu nekkee frère beneen mbër mi ndax kenn ku ne ci mën naa ne li Nicolas def na ci yow loo xam ne yow mbër bi ci mbër yi loo xam ne lu la te yeneen mbër jàmm am naa yaakaar ne ci kàttanu yàlla daal. waxtaan wi ñuy def soobee yàlla am nañu yaakaar ne ci gàttanu yàlla dañu am am projet d' accord te xëy na du lu ñuy a waxtaan ndax waxtaan rek la moo tax mënuñu avancé mais daal li wërte wóor daal am naa yaakaar ne combat bi dina taxaw bu soobee yàlla nga yaakaar waaw lu wërte wóor moom du yàgg dara bu soobee yàlla daal amaa ngi pare ci digganteem ak Modou pare du pare wu dafa pare mbër mu ndaw du pare day pare du pare pare day di di di wax nag ne bi ngeen ñëwee ci lamb da ngeen a jëmale ci les jeunes amateurs la bokk. ay ca booy waar mi ngi noonu ay ca booy waar le préparé yan ba le trois ay ca booy deuxième combat de la soirée Cheikh Omar Ndaysan arbitre sifel na ci diganté Boy Ndiago ay Boy war Boy war mo fété suñ chamoñ Boy Ndiago mo fété suñ Jor ah Boy war jël nga sengoru jambour jël sànni ah. waron nga ko fa bayyi Boy way Boy war cokkaas na moo ñëwoon ginnaaw oh combat ba jeex na booy waar na ko doole góor xal ci tànk <laughs> jël am na waaye yal na combat yëpp mel ni waay ndeysaan booy waar daan na booy waar daan na eh xool ko ma ngay sibile Mamor lay Tigre mii di bëre daan naa ko kii taxu maa jóg barke Cheikh Saliou Mbacké lan moo tax a jóg samay bët fi mu nekk du ñii ci ñan la de xale gëm naa sama bopp ànd naa samay mbokk maa ngi liggéey respecté naa leen fonk naa samay coach ak sama ménagère waaw foo jëm foo jëm fi ma jëm Zal xam na ko mooy sama ménagère zal saison ren trois combats laa bëgg te barke Serigne Saliou Mbacké maa la ko wax saison bi loolu ci bëgg a bëre trois combats trois combats laa bëgg saison bi mais nag maa ngi sant monsieur le maire Pape Ndiambé Dieng madame la maire maa ngi koy sant journée nan nga koy dundee. waaw di ko préparé bu baax a baax di ñaan sëñ Fallou mañ ndam. xam nga sa adversaire bu ma ko bu baax a nga sa ma ko bu baax a nag. waaw ma ko bu baax quoi. léegi loo fas yéene jëm. waaw ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam rek ci barke sëñ Fallou. gos tuus bi neex na lool kàr ba. waaw gis <laughs> adversaire bi di ko ñaanal jàmm di ñaan sunu borom defal ñu ndam ñaari ndaanaan ay bëre mais maa ko dàq bëre fuuf bi nuy mujjee fii maa garga bu yëmbal yaa doon rapporté gis nga wër ndombo bi wër ndombo foofu lan jëm maak moom tey day am day am waaw Balla 3 Cheikh Omar ñoo ngi ci cinquième combat arbitre sifflé na Cheikh Omar ci diggante Thiatou Dakar ak Balla 3 ndeysaan Thiatou Dakar écurie Dakar Balla 3 école de lutte Balla Gaye ndeysaan ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati waaye ñaari yaa ngi leew too kurpeñ dalagul Balla 3 mel na ni day dem ah ña ngay dem man tey baaraam Balla 3 mel na ni day dem songoo nañu Balla 3 caatu Ndakaaru Balla 3 moo ñëwoon ginnaaw ndeysaan école de lutte Balla Gaye caatu ndakaaru moo ñëwoon ginnaaw ndeysaan moo ngem moo ngem lu weex Cheikhou Omar e lan moo xew arbitre arbitre arbitre balle 3 dem na ardo Cheikhou Omar ndeysaan arbitre sifle waat na ci diggante balle 3 ak caatu ndakaaru songo caatu ndakaaru Balla trois songo nañu Balla tolala Balla trois daan na caatu ndakaaru Cheikh Omar Balla trois ma ngay gas daan na caatu gaaw na de Saya ya yaay booy. nga am tey nga am tey combat lan nga ciy wax. sant yàlla rek julli ci yonent bi di ñaan yàlla may ma sant ci yonent bi di ñaan may champion. waaw champion champion ñooñu. champion ak champion. waaw foog am ku dem am ku rek. looy indi xeex wala bëre. ñaar yëpp laaj rek. waaw lu laaj rek. lépp laaj allah. sooba yàlla. waa lan moo sa ah nit ñi ñoo ma ko tuddee rek nit ñoo ma ko tuddee waaw fan looy wax tey sa adversaire li may wax mu ñëw ñu bëri ay xale lañ kañ nañ war a bopp rek jéem a fii gants yi yegg foo lañ teg suñu bët mais. bi mooy sa ñaata combat fi mooy benn victoire ah bii xam naa mooy sa deuxième bii mooy sama deuxième war cee wane sa bopp waaw damaa la demee nag ah, sisin mbaay naaru Cheikh mbaay góoru alima mbaay lay woo waaye bala jonna ngi nii ci kaw sama bawal bawal bi nee la sama manga la sama mama nga la mbaay bu réew mi naree ñaaw ñu dem la mbaay ana bada jondu ma lay woo jom gale na Cheikh Omar ci sixième combat bi dox na ci Moussa Guy gi ak zéro arrière mais Cheikh Omar zéro arrière moo ñu féete suñu jàpp. ah bu dee dëgg la de bu dee tur bi wuy na borom. ñu xool ndax dina arrière wala du arrière. ñu xool ndax dina arrière wala du arrière. zéro arrière ak Moussa Guy gi zéro arrière moo ñëwoon ginnaaw. tànk na jëm ci kanam rek de waaye bu mu jëm ginnaaw <laughs> zéro arrière ak Moussa Guy gi Moussa Guy gi jokkaas na zéro arrière door na ko épirkil daan na ko da koy daan zéro arrière daan na combat bu yomb doole doxul jàmm doole doxul jàmm yomb na ko na loolu ziar ba pare doog a waxtaan ak yow. yaay sama yaay booy maa bu baax a baax ñaanal jàmm ak xew ak sutura kontaan bu baax nag. ngeen ñëw ci seen drapeau lan ngay wa waa di am kontaan rek di ñaanal dara ñaanal drapeau bi ki nga ko tuddee yàlla na yéen yi topp muy Mbaye Diouf di ñaanal promoteur bi nga xam ne moo ko def itam yalla yokk xéewalam ba mu a tëgg yeneen combat yu gën a mag yi combat yi yàlla mën na ko am ko yàlla na ko yàlla def. ngeen ñëw tey ànd ak nga xam ne ni moo doon seen champion muy Mbaye Diouf. waaw loolu moom dañu ci kontaan parce que mbay wax dëgg yàlla ñoo ko encadré ànd ak moom a ah, lu ne mu def ko ci làmb lu ne mu defal ko bawol parce que ku calculer ku ko xool tey bi muy daan Eumeu Sène bi muy daan Baye Mandione bi muy daan Souley Doob bi muy daan Langsane bi muy daan booy Kayre xam loolu rek ah wax dëgg doy na doy na doy na palmarès daal. doy na palmarès. op lu op lolu amna nak combat yenen yi dama lay limal rek parce que buñu ñu doon lim duñu fi jog ah mu doon ko xamante nii doomu Bawol la doomu Réfane la sunu rak la sunu jarbat la ah, idaa di ñi di ko delloo njukkal vraiment doon xalé bobit mom dafa joge Bawol doon supporter mbay Diouf ba tay ji mu gis reconnaître li fi mbay Diouf liggey vraiment diko sargal kon ñun duñu mëna def lu dul gërëm idaa di ñi parce que nit ken mënul op sa bok kenn ku xeeb sa mbokk sa bopp nga xeeb parce que kenn amul lu lu ëpp sa mbokk te mbokk palmarès bi ma la wax ni vraiment ku ko sa mbokk def vraiment boo demee di sargal keneen wax dëgg day xaw a nekk euh, saytaane wala soxor kon nag wax dëgg yàlla idaani li mu def kenn du ne. non lu rëy la def parce que wax dëgg yàlla nit ku nit ku baax. Diouf dafa am lu mu def ci lam non dafa def lu ne ci lam ah, en même pas même bu deful woon dara ci lam tey idaani ni mu dëkkee Bawol. doon doomu bawol di teg lam di sargal doomu bawol rek dafa nekk lu rëy daal. Cheikh Omar septième combat de ndeysaan mu dox ci diggante le géant de Bawal ak ceebu door dooraat oh le géant mooy njool mi moo ñu won ginnaaw waaw de garde mbaax na waaw le géant ah cokkaas le géant ma cokkaas tel cokkaas bi mooy deuxième combat waaw mooy deuxième combat doy moo du tay seen bay Moustapha de laay bu ko gis oh, waaw waaw moo ko bu doole moo ko ëpp relance moo ko dóor mu daanu. war na doon moo ko ëpp relance moo ko ëpp doole. wuy na trop ah la géant. la géant. géant de Bargny. fii waa Tafatini la rek. Seexu lii naan bëre foo ak ree ku daanu rus. ku daanu rus si géew bi. ku daanu wér. maa baa ngi noonu di ko jël waaw waaw muy góor a soog. boo ko indi gonay parcelle bi. sa xarit laa boo xamul de yow laa mës di supporter yàlla xam. ndeysaan loolu am na loolu yàlla def na ko. mais bis tey lan nga ciy yëg. waaw kontaan rek parce que bu xew lee tudde ko bawol te dañ ne bawol bamba loolu donc dafa doy sek bawol bamba. Euh, Idaali jël bis bu toll nii tuddee la ko. waaw ma ko la def ci yow. dama kontaan rek ànd ak samay mbook ñoom ñëpp ñu ñëw teewle ma bés bi xam ne man euh, seen xarit laa seen lépp laa daal tamit seen deret laa seen mbook kon du ma mënul def lu dul kontaan rek. parce que ñom ñep no ñooñu gis nga mobilisation biñ def contane na ci torop yegg yegg yu bima ma am tey mosuma ko yegg parce que nga soxla nga nga am bes say mbos ñew mbok ñew dafa am solo torop parce que buñ ne diw baax na dañ ñaan mbok ya ko wax. voilà kon kon firnde bi mi ngi ni même bay nga beure tok fi tay jakar lo xalé yi ñuy beure lan nga yegg waaw contane rek contane torop parce que lamb tay man dara mënu ma ci jaaxal ma xam ko lol nak damay contane digante ak Eumeu waaw loolu amna digante kan. Souley Top. sa diggante ak waaw Baye Mandione. an Baye Mandione. Boy Kayre ak ñeneen ak ñeneen ak. non champion waaw loolu am na loolu am na. yaay tëj yaay Iba Mar. waaw non dina am yeneen journée mais incha allah le 29 dinaa ñëw fii ak yeneen façon Tafa Mbeur Alioune Seye Junior Jobaas Demba Thiaw. Diomaye ak sa bokkal eh, montagne bu faas ak bébé guy gi ak yeneen juróomi juróom-benn combat yoo xam ne bu ñëwee la le 29 dinañ xam ne. Eh, bawal da nga ni ñëw ak beneen façon. Eh, bawal ban ba. comme nan daan ñëwee rek. nu ko bu ñëwee dinañ xam ne bawal ñëw na Ibomar incha allah. béykat yi dimanche passé ma seen ñëw lëng ma man ma ndeysaan yàlla xam na ko. booba dernière fóon bi woon mi ngi noonu. génn na àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barke yonent bi noo gisee làmb nag asbekaay fi ñu toll waa xale yi dañooy bëre bu làmb yi mag yi taxawee daal làmb neex xam nga asbekaay damay wax sax ni euh, euh, amateur yi dafay mel na sax làmb yi moom la ñu gën a bëgg ndax ci la ñuy gis seen bopp ci la ñuy gën a gis bëre waaw xam nga xale yi bu ñuy bëree duñu duñu am arrière pensée danay dem ba jeex waaye nag dafa am ñoo xam ne ci ñoom la yàlla def xorom si Balla Gaye ngi bëre ah Modou Lo ngi Modou Lo ngi Ama ngi bëre Ama ngi bëre Boy ngi bëre Ama Sène ngi bëre Ama ngi bëre tafaatin tafaatin lan la dan koo ragal daa bari doole ñu ragal ko du leneen de bu la ci bul xool fen dan koo ragal mooy mbër mi kenn du ne ana mbër mi boo ko xoolee waaw loolu dong la ñu toppal ma xool mbër mooy mbër mi waaw yàlla na ko yàlla taxawu moom tamit xale bu baax la xale bu yaru la waaye amagul combat ba léegi dañ koo ragal rek koo ni Tapha mu ne yii wóorul mais ko man it bëgg naa nuyul ma sama jeeg dina ko dégg bu soobee yàlla def jaale la duud yaa kati d'abord waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Dakar Actu yëpp euh, muy site bu baax bu ñëpp di seetaan macha ma xam boromam ak ñi ciy liggéey yëpp di jaal Sénégal yëpp du yaaykat yi nit ku baax dem na wéttalu làmb dem na nit ku lafar xol dem na nit ku mën li muy def dem na nit koo xamante ni ci juróom yu mujj du yaaykat yi boo ko gisee rek xam ni ci tàggatoo la nekk ndax jikkoom bu rafet ak yéeneem ñëpp lu jàmm lu baax tax yàlla may ko bis bi mu ko may. nal yàlla yàlla bu ko yàlla topp dara yàlla na ko yàlla xare àjjana di wax nii eh, yàlla daf koy fay xolam di ko rafetal ginnaawam ndax bi mu génnee àddina eh, dégg naa ci waxtu wi tembe Youssou Ndour ma nga fa këram di ja di jaale ministre des nekk fi waaye directeur cabinet démb dem na fa bi mu fa demee itam waa njabootam ñaan ko terrain maanaam fu njaboot gi dëkk yàlla def moom mu génn Ibrahima Ndaw directeur cabinet des sports waxtaan ak xaritam bu ñuy wax Ndiagne Diop maire Bambilor mu ne na ko indil carte mu may dudu yaay kati tere ca bambiloor loolu mooy ginaaw gu rafet mooy ginnaaw gu yàlla gërëm kon loolu yep yalla nako njabota murlo kon nak du du deug la tay ma nga àllaaxira mais dafa mambi lor waaw waaw wala kon mom xam nga mom xamoon na ku ne xamoon na mambi lor ndax ndiku cuun mi mu séyal njëkk ci khadim nday ngom ku ngom lor kon xam nga ni diko du du ndiko euh, ko euh, ak mambi lor euh, jeexagul kon yalla nako ko xare aljana njabar gi fi bayyi yalla tek ci loxom te yeen itam ñu ngi leen koy jale yeen sportif yep ñi wax ci lambak ñi teug ak ñi woy ak ñi fecc ak mbër yëpp ñu ngi leen di euh, jaale du jaaykat yi di leen wax ni yàlla ko yàlla xare àjjana saraxam yàlla na yàgg suñu loxo aca ñaan ngeen tafli aca leen hee eh, Seexu Amar lan mooy xeeñ li ma gis dalul sama xel a ah bëri na de mun na ñëwee fu ne distance bi bëri na distance bi bëri na tuuti rek mais yàgg-yàgg dinañ songoo yàgg-yàgg daañu songoo ah, yàgg ñu xool kan mooy njëkk a déplacé wu ah Gilles Balde oh là là Mbaye Khada Mbaye Khada alliance Mbaye Khada cokkaas na dawaat génn ñaari mbër yaa ngi da man tey baaraam Mbaye Khada oh la la Alliance Baldé la ah, jël na ko waaw doole xajul ci yel Mbaye Khada jël na ko du combat du daa yomb loo du combat yomb lay delloo. ak saa. noo gisee di tëgg làmb suñu xarit suñu rakk suñu frère ñu bawal muy organiser premier journée am mënu ñoo def lu accompagner ko ñëw jàppale ko en tant que frère vraiment am mel kontaan ci bu baax a baax ndax gis nañ ne vraiment am na résultat te loolu la ñuy mais sa deuxième journée kañ

muy sa incha allah euh, arène nationale bu soobee yàlla incha allah. may ñan ñoo la gunge. Euh, ñu ma gunge si. Euh, ci sponsor. aw ma ku si gunge nag wax dëgg fa yàlla samay propre moyen nu bopp laa demee nii quoi waaw di sant yàlla bu baax a baax. ba ti sa premier journée kañ la. samedi le 21 bi ñëw incha allah la samedi. samedi bii nii di ñëw. samedi bi ñëw le 21 décembre incha allah. waaw kon ndox ci diggante kan ak kan. xeeru ngor boo yëmal yankaas ñoo réparé muy lamb ju neex ambiance ndaw waa Kaolack. waa Kaolack Cheikh waa Ndakaar lébu yi ñëppay génn incha allah le 21. waa Bambey sama waa dëkk ñëpp ñooy par le 21 décembre daal incha allah. nag sa journée amateur yi jàkkamti ko. non incha allah waaj lu rëy bu ci yàlla dafay jàmm rek waaw am nañ ci yaakaar daal waaw mais arr nationale leen jëm rek comme noonu ko daan defee rek bëggal amateur yi bëggal supporter def lu neex waaw comme nan daan def rek incha allah am nañ ci yaakaar daal. Grand Théâtre lañ jëm ak Siri Diop pourtant signé nañu ak Dakar Actu ñoom ñu nar cee liggéey def ci liggéey bu rëy. ñu nag ñu nag yow ay liggéey. Ah, non dem nañ fa ba signé ba pare ak madame Ndiaye ba signé ak ñoom Sele incha allah ñu jëm le 10 Grand Théâtre ak Siri Diop incha allah la ñuy foofu rek ba après ñu dellusiwaat. waaw waaw mais ren it xam naa ne mën nañ maa bañ a gis nag wóoragul nag mais daal ñi ngi ci daal en tout cas incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ngéwal gi production. ah Fatim da Fatim. maa ngi lay waay waay waay. sa jabar sama xaritu doom la. déedéet waay ah yow da ngaa baax. sama xaritu sama xaritu. ndeysaan dégg loolu. yow da ngaa baax. ndax yow kañ ngay ubbi sa saison. non maa ngi ubbi mois de février incha allahu rabi ci kàttanu yàlla fee ci arène nationale. waaw ñu ngi ciy woo Sénégal gépp ñu delloo mbuum te boy boy ga xam nga ngéwal gi moom bu wootee rek daanaka axlu ngéwal ñëppay waaj ñëppay ñëppay teew ndax waaw nga samay journée ni muy mel ma ku mën bis nga moom carrément non waaw waaw bilaay bilaay bilaay mais nag mais nag ñu ngi woo Sénégal gépp ñu jàppale ñu ñun seen promoteurs yi ndax xam nga lamb dafa xaw a metti kon bu buñ ci duggee nekk ay jeunes dañuy bëgg sociétés yi ñëw di jàppale suñuy tànk ak entreprise yi xam nga kooku kon Mor daaw journée yi mu të yi mu tëgg amul kenn ku ko ci gunge ci ay promo ay ay ay ay. non jëjëf Mabul laa àndaloon ngeen baal ma publicité bi. jëjëf Mabul sama sama jeeg. waaw gis nga ko moom la moom laa àndaloon euh, daaw ci journée samay journée yëpp daanaka ñoom ñoo ma ci gunge mais ñu ngi ñaan yeneen sponsors yi yeneen për kii entreprise yi ñoo jàpp ci ndax xam nga làmb moom xam nga. dafa metti dafa dafa metti. ndeysaan Mame Mor am na léegi benn avertissement Cheikh Omar mooy daje ak Boy Jules bu Falaye Baldé Mame Mor Boy Jules Mame Mor moo ñëwoon ginnaaw Boy Jules moo jàkkaarloog ñun Mame Mor Boy Jules Cheikh Omar ñaari mbër yi ñu ngay damante baaraam Mame Mor Boy Jules mais Cheikh boo xool dafa mel ne Mame Mor gën a diis waaw moo gën a diis mais loolu du yàqul dara si combat bi jërëjëf sama caméraman Cheikh Omar nee na loolu yàqul dara ci combat bi Mame Mor a ngi dox ci kaw Boy Jules oh là là Boy Jules songoon nañu Mamor Boy Sil songoon nañu combat bi amul xeex Mamor Boy Sil ee eh, Boy Sil lu doon na ko wañ Boy Sil Mamor ñaari loxoom ak ci ngemb ba mu dëgër da daan daan na ko Mamor daan na Boy Sil daan na ko jë doole doxul jàmm doole doxul jàmm laaj sama combat bi mooy sama digganteeg Thiély mi. sa digganteeg Thiély mi bëre. waaw tey la woon suñu premier face à face fii si Ibomar bi journée bi la 4 janvier la ma bëri 14 combats 6 spécial laa bëri mosuma bëri grand si man na parce que maa bëggul woon mu bëri grand combat. yaa bëggul woon teel a bëri grand combat. bari na samay morom yi teel a bëri teel a bëri grand leen ko. mais 14 combats laa bëre sama premier grand combat na nag di woo waa Grand Médine ñu génn jàpp ci bu baax a baax na si waa Grand Médine ñëpp jàpp maa ngi leen ciy woo di woo waa Balak Jama di woo waa Mbaar mi waa Piol bi waa Banlieue Thérèse di woo sama gars yi ñoom Aliou Thiam Aliou Aliou Thiam Mame Cheikh Blondé Colombo Abdoul ñu génn organiser wu mobiliser combat bi dama soxla mobilisation te ñoom ñoo ko war a def Brise mi dama koy ñaanal combat yàlla may ko combat grand combat dañuy entraîné noo Mori Cargo combat ba mu jëm yàlla may ko si ndam Brise mi ay ñoom boo jëm Youssou dañuy daje sek ngoon 16 heures pile daje nañ dañuy déggoo xool fi ñuy dem làkk ko entraînement di entraînement lu wóor yàlla na ma yàlla lafal cat yàlla na la yàlla na ma yàlla musal si seytaane ak bët ak làmmiñ ndax tey bawol gépp ñu ngi ci sa ginnaaw mais nga def lu rëy jël jël drapeau tuddee ko kii nga xam ne moo doon champion di kontan ci rek ndax Mbaye nak daw nañ ndax Mbaye Diouf kon war nañ ko delo njukal dal ñuy kontan ci wa lamb ñepp dal di kontan sama mbokk bawol bawol yépp di leen ñaanal jamm di ko ñaanal suñu bop di wax ne maa ngi gëreu Abdoulaye ndjay mi nga xamé dal moy sama xarit ma ngi koy sant bu baax mok ay jabaram daado ak asu ma leen sant bu baax di nuyu doom Fa ndjay mom moma ko jox ma baye ko kon ma ngi koy sant bu baax baax di bëgg di ko kontan ci mom bu baax ma la sopp ndax li tax ma sopp la mom moy li nga doon talibé seigne Abdou Karim Mbacké borom mal xaalimil axlaas xarit di wax ne kontaan nañ bu baax a baax a baax gis nañ ko maa ngi nuyu borom léegi-léegi nag ndax wax dëgg yàlla affaire yi li mu waxoon lépp gis nañ ko kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a ko wax ne ñoo ngi ñëw foofu incha allah. jërëjëf yi daan naa ci sant. waaw merci. nga ñëw sa mag. waaw sama mag koy ñaanal maa topp si moom mu nekk mag ñu mat a mag nag boot na ay rakam daal dañ koy ñaanal yàlla rek fi mu bëgg a àgg mu xoolam rafet na yéene na ñëpp lu baax waaw di sant yàlla rek nag di sant yàlla lépp yàlla la waaw ñu ngi koy ñaanal daal fu mu bëgg a àgg rek mu àgg fa waaw fu mu bëgg a àgg rek yàlla àggalal ko ko. merci merci merci. ngi wax ay sixième laaj na leen laaj na Saal Bambey ndeysaan laaj na laaj na Bawol Boy Bawol nee ko pare na sifle na Cheikh Omar Saal Bambey suñu ndey joor Boy Bawol de suñu càmmoñ ndeysaan Saal Bambey mu ngi fi daan garga de bu yëmbal waaye booy booy booy bawal deux bi moo fi mujj daan bañu kay. waaw loolu de am na moom mooy. sant doom ci booy kay. ak booy junior di ma. oh là là Zal Bambey ndeysaan mooy dajeeg booy bawal. Zal Bambey mujj fee daan garga deux bu yëmbal jël bu rëy garga déedéet. Eh. booy bawal il faut faire doucement. bëre ba sa doole jeex Saal Bambey nax la daan la moom lay bañ oh la la bu ko defaat bu ko daanu yaay daanu yaay daanu lan la waxoon laa ilaha illallah Saal Bambey day ah du yomb daal lu booy ba walla du yomb moom laa ilaha illallah waaw waaw ah ah ah Zal Bambey daanu na wala muy njaax booy daanu na booy ba supporter yi xoolal supporter xoolal supporter yi xoolal supporter yi oh booy bawal fii ci stade Iba Mar Diop mu doon première journée ñing production combat bi mag bi doxoon ci diggante Zal Bambey ak booy bawal booy bawal daan na Zal Bambey euh, jël bu rëy Cheikh